ngi woo itam El Hadj Ndoye xam naa woo woo gi sax du sori parce que moom tu il est toujours euh, taxawaayam rafetlu nañ ko ndimbal li mu defoon daaw fa tabaarakallaahu yëg nañ ko dëkk bi yëpp yëg nañ ko parce que ñun lu nu jot rek ci wàllu ndimbal rek dañ koy jéem a partager ak dëkk bi Eh, am na suma benn mbokk bu ma ne ah sëñ Mansour yow de war nga sant yàlla sant Ndoye Bane <laughs> parce que <laughs> moo la tax a <laughs> ah waaw wax na dëgg alhamdulilah rabbil alamin Ndoye Bane bu ma siiwalee boppam la siiwal parce que maa ko jur waajur la waajur la ma ngi nii takku dëpp bi gàmmu gi amee léegi nekk ci comité de euh, d'organisation bi du yoxi du tàyyi fii mu nekk nii ñu ngi fas yéene ànd dem Njaasaan kon moom El Hadj Ndoye Bane koy nuyu di ko yóbbante ci El Hadj Youssou Ndour ndax euh, TFM beeg maanaam rajo beeg télévision bi yëpp mu boole mu ko pour euh, gàmmu gi. maa ngi koy sant de passage lépp loo gis rek dafa am bis sama kàddu yi tey laa am moyen wax ko bi nga xamante ni Thiès 24 ñëw nañ fi euh, may ñu moyen bu bu nu waxee ak yéen euh, mbind dafa làqu photo dafa làqu waaye rajo bi ak télé bii yaakaar na ne ku ciy wax lépp loo ci wax nag ñor na la li nu ñor lépp sax mënuñu ko wax ci rajo bi mënuñu ko wax xan al alburaax alburaax yaa ni alburaax fm moom itam jot na ay lettre am eh, sunu mbokk mi tox taxaw nag di mbaw nga xamante ni moom du tay du yoxi lu lu lu lu sori mu ngi koy xëcc pour mu jege eh, lu jege mu ngi koy faste pour mu gën a dëgër moom itam ñu ngi koy nuyu di ko def appel ak Dabax FM ak ñépp daal bàyyiwunu bépp organ eh, ak sunu doom Ndate Diop téléphoné naa ko sànq ci suba di ko wax ne ko mbir mi sa mbir la bul xaar ñu woo la bul xaar ñu jox la leetal am na yoo xamante ni sax ñun bu ñu ko defee yaa nu war jubbanti ñoom ñëpp ko ñu ngi leen di woo ci bis bi. di ñaan yàlla rek comme ni ma ko waxee woon ci sànq bi may daaneel eh, sutura ak mbég ak eh, coono boo xamante ni sunu borom tabaraka wa taala moo koy fay parce que loo def ci moom sallallahu alayhi wa rek yàlla moo lay fay ngeen baal ma ak